jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen jaajëfal ñu ñuy teewlu ci seen bi di naratu yi dal leen ak jàmm gannaaw ba nga xamee ne ñii di waa PDS daal di nañuy jot ndigal ci kii di Abdoulaye Wade ngir rek ñu daal di jàppale si. coalition Diomaye président bi ngir rek ñu daal di am ndam ci premier tour yi le lu ni mel nag dal di nañu koy dëggal niki tey jilee ginnaaw ba nga xamee ne rek ab gisee dox na ci diggante kii di Abdoulaye Wade. ak ki nga xam ne rek moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki tey jëlee nag mbir mu ni mel nekk la nga xam ne rek daal dinay dëggal ak dugg si ñii di waa PDS ci coalition Diomaye président bi lee kon nag mu mel ne jamono bi nag mbir mu ni mel daal nañu koy confirmer ni ki tey jëlee gannaaw gisee bu doxoon na ci diggante kii di Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne rek moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu mu mel nag ñu daal di koy dëggal ni ki tey jilee gannaaw ba nga xamee ne rek ab gisee daal dinay am waxtaan ci diggante ki nga xam ne rek moo di Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Wade mu mel ne rek jamono jile ñi nga xam ne ñoo di waa ñoom daal dinañu dugg bu baax a baax ci coalition Diomaye président bi la tey wax na rek premier tour yi la ñu daal di soxla ndam lu sedd guyu moom Bassirou Diomaye Diakhar fay ak la nga xam ne rek daal dina koy wax ak kii di góor gi gannaaw ba nga xam ne rek daal dina koy sant gërëm ko ci dugg si ki nga xam ni daal na koy dugg si ci coalition Diomaye président bi la